weer mu mel ni lamb benn bopp nga am en def nga sa carrière ba mu jeex tey ngay gunge say doom xanaa di wax alhamdulilahi rabil alamina di wax rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tey avant may ñëw si ñoom rek damay ñëw seen way jur bii muy Mamadou Sakho ñu xam ko ci Double Less mu doonoon jullit axan nag laa ko njëkk a seedeel ci lees boo ko fekk muy làmb wala feneen kurus bi mu ngi ci loxoom ñëpp mën nañu seede ne stade sax bu yóbboo doomam mu bu waxtu bi jotee day bàyyi lépp dem julli farata yàlla kon kooku bu mel noonu kooku jullit àqal la yàlla na ko yàlla yërëm mu doonoon koo xam ne bi mu nekkee ci bagage amoon na ci taxawaay bu am solo macha allah mbër kaamil la woon parce que dafa mandarga yoo buñ koy am na loo def parce buñ ci tolloo seigneur des arènes lañ ko doon tuddee lañ ko doon tuddee macha allah ñun fekkee nañ ay yenn combat am mais yenn saa yi si biir bëre sax day indi yërmande parce que tolloon noo xam ne mbër yi tolluwuñu noonu ëpp leen doole nag ñëpp yàlla ko am doole xam ne sax xam ne fii ci réew mi laa wax ne mais boo génnee international ñun xamuñu ko mais international ñoo dama ne la li fi am ci médaille fii Sénégal Double moo ko fi indi li fi am fii ci médaille Sénégal Double Less moo ko fi indi parce que li mu dominé li mu dominé woon fii parce que dayoo boobu yàlla moo jàpp am am lu mu def ak àdduna di dem di dem di dem tey ba li mu def tey mais dañ bëgg rek toujours état état bi tiire si yu mel nii international bu mel nii li mu defal Sénégal mérite am ëppoon na lii mais gis nga ni mujj waaye nag yàlla yàlla dafa juste avant muy làqu am na lu ko lu yàlla lu mu liggéey yàlla indil ko ko yooyu yëpp du hasard moo tax yàlla ko yàlla yërëm njaboot ngi fi bàyyi yàlla na si yàlla teg ci barke mooy la mën a sere Abdou ah, yàgg ngeen famille Sakho rawatina Double si beneen loo ñu mën a ci Double Less ak maa ngi lay nuyu bu baax di jaale Sénégal gépp di jaale surtout nag famille am di ci jiital Balla Gaye ak uh, ki nga xam ne kii mooy uh, Sa Thiès ak njaboot yëpp ndax xam naa ci ak njabootam ñu xaw a sakkan allah waaye daal uh, Double nekk na koo xam ne kii Sénégal gépp ko war a tey parce que époque am na ko marqué Sénégal dafa nekk champion d'Afrique. nekk champion du Sénégal nekk champion du monde ku mel noonu bu fi jógee nag lépp lu Sénégal def da ko war a bàyyi parce que koo xam ne kii tëggal nañ la hymne national nga yëkkati drapeau Sénégal ca kaw am ndam indi ko ay ay yoo xam ne yii nekk équipe nationale nekk capitaine bi def ay promotion yu mën ca làmb ji fii mën en Afrique nekk champion d'Afrique kooku noonu bu fi jógee war nañ ko sara sargal de passage maa ngi jaale Sénégal bi di jaale lu ko commencé ci seen zone lutte ba ci menacé yi ko jaar ci Basirou Babou daa tax xam ne lii nga xam ne li moo xew tey nii war nañu ko def ci mbir yëpp waaye rawatina ku mel ni Double ndax mag la woon moo xam ne bii mag mu doon dafa ragal kenn mësu koo dégg ci ay yoo xam ne yu ñagas la. wala njabootam nga dégg la njabootam lu ñu def la leneen lu ngay def te nangam mos ñu ko leen dégg njabootam fenn loolu ci sport loolu dégg naa ci làmb nga ni dégg sport ñu def li ñu def bu jeex kon ku mel noonu la bu fi jógee di kilifa ci làmb di kilifa ci réew mi jàpp naa ne jàpp baax a baax di ko tàggatal di ko ñaan suñu borom tàggal ko jàppale ko ñaan sa borom am nañ ci xel dal ndax xel ba rafetoon naan mënoon naa takkale ay ay doomu aadama yoo xam ne yi dañ yaakaar ne kenn mu koy mën a boole te dafa leen doon boole du takkale yor ji ko musaan di takka rek di ñëw ku mel noonu nag ñoo ngi koy ñaan suñu borom tabaaraka wa taala yàlla xaar barke Cheikh Khadim ak barke xasida yi nga xam ne mën a jàng jërëjëf kon wax bi hmm, jaale si bàll ànd ak sa bopp euh, Diène lan ngay wax tey sa première réaction lan lay doon waaw xam ni moom bañ sant yàlla di jël lépp ci Mouhamadou di sant suñu ñaari njaboot bi biir dëkk mooy seen waajur di ñaanal suñu papa ba ngeen xam ko duubalees yàlla yërëm xaaree ko àjjana sëriñ bi wax la vraiment parce que dëj bi moom Sénégal yëpp ko yëg boo romb sax nit ñi dañ lay jaale wax dëgg xam nga mu doon koo xam ne mu monument la woon ci Sénégal rawatina ci sport rawatina ci làmb di ko ñaanal yàlla daal moo xam nga suñu maam yi dem ren yëpp yàlla xaaree na àjjana ak mboolem mbindeef waaw di ja di ko jaale ñoom Balla ñoom saa xam nga ak famille bi yëpp daal waaw famille bi yëpp ñu ngi leen koy jaale ak monde làmb yëpp waaw mu mel ni adversité bi même bu amee itam yaakaar naa ne mbir yi gis nga kera li am si bi paa bi wàccee mbër yëpp a sol seen dàll ñëw yéen ñëpp kenn desul mm-hmm. ànd ak moom gunge ko ci këru dëggam mm-hmm. tey ñetteeli fan bi ngeen solaat seen dàll ñëw mm-hmm. loolu lu muy tekki ci seen biir yéen ñi nga xam ne ay adversaire ngeen waaw dëgg la xam loolu day wane ne lii lii moo gën a foor làmb quoi làmb moom wala mun naa ne mais lii lii mooy dëgg waaw lii lay ay caaxaan la la xam nga tey moom teeku na le xam nga dox waa du tee lépp lu waay war a am rek da nga mais nan naa ñu xam ne lii moo gën a foor waaw mais parce que ay ju lii jàngat dinaa del siwaat yow waaw mooy que nii sama xarit la nit ku a nit ku baax taalibe boo xoolee bokkoon na ci mbër yi ñëpp ñu gënoon respecté ngir yaram ak tegginam te kenn nag kenn dàqu ko woon bëre waaw ñaari yoon nag la ñu bëre bu njëkk bi ma ma daan ma jël revanche daan ko mais nit ku baax a ngi nii day ñëw suma kër damay dem këram li may wax yàlla yàlla seede na li may wax dañuy demal dañuy dem leen dem ak moom kon buñ dajee fii ci dañuy gën a wane ne rek sport sport bu jeexee jeex na léppay jeex si àdduna waaw léppay jeex boo boo gisoon jamonoom ni mu toll woon nga xam ne yàlla yàlla mayewul dafa abale waaw ñun ñii fa lañ jëm gisooñu léegi commencé nañu màgget ñu ñu ngi lay jaale kër ñëpp ñu ngi jaale ñëpp liñ bokk ndax ñun ñëpp a bokk suñu papa Doubalès Sall kon ñun ñëpp dañ kaa jaar suñu bopp rek. Euh, tey defe naa ne yow itam ku jege Balla Gaye 2 nga balaa may ñëw ci pepp mooy kay rek. ngay gis nañ ne ku ko sës nga te pourtant bëri ngeen combat bu méttee méttee méttee. ma boobu ndeysaan dem ci yàlla Mbaye Guèye kera dafa sax ma ne ku wax ba yuuxu ndax contentement ndax la Balla bëri ak yow wala la nga bëri ak moom ñoom ñaar ñëpp génn nañu àddina Mbaye Guèye dem na Double Less dem na nga sës waaye li may wax ñoom ñaar ñooñu yëpp tey dem ji ak ñu leen fekk ñu leen fay fekk yàlla leen suñu borom xare àjjana partage seen barke ñu jaar yàlla yeex mais ñun ñëpp la leen euh, lépp moom la rek parce que àddina comme li sama taalibe cheikh mag bi wax sama kilifa la ndax mooy sama kilifa ndax mooy sama taalibe cheikh comme li mu wax rek àddina ñun ñëpp mën na noo bëri mais lépp ci jàmm la xaj te àddina lépp teranga la tey ñu ngi nii toog ñun ñëpp Balla Gaye keneen ak keneen noonu tey boo ne bi sama grand la bëri nañu tey ñu ngi nii toog ma ak moom te damay dem këram comme ni mu ko waxee may ñëw këram kon xale yi ñoo war a yeew di demalante di dikkalante xam ne làmba mbiri àddina la rek Balla nag dañ koy ñaanal Eh, kii dem naka gën di ñaanal rek sunu borom xare ko àjjana ndax eh, eh, Balla Gaye wax la bu yaru la boo gisee mu am bu bu amee xew ñëpp jóg dafa baax la fa séq ñëpp jàmm ak salaam ni mu séq ak man jàmm salaam noonu la ko séq ak keneen keneen sama xarit la sama rakk la maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na suuf bàyyam aw fan ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi kii di yaakaar naa ne ku nitu nit nitu Balla Gaye numéro la ku la xam-xam ba xam la ak bàll mbay safar safar waaw maa ngi lay ziar di la jaale góor gi waaw ñoo leen koy jaale yéen góor gi kenn ko dem na nga ko jaale sa bopp ndax bàll seq na ko ñëpp loolu rek a tax ñu jógee Touba ba ñëw fii ngir jaale si ko ñoo ngi koy ñaanal yàlla na ko sunu borom teeru yóbbu ko ci aljana ya gën a kawe sun na ñaan képp lañ ko desel kon yàlla na ko yàlla taxaw te jéggal ko ay rëcc rëccam barkeb Sëñ Tuubaa góor gi miinoon nga am na loo miinoon ci moom. waa xam na man nag Balla laa gën a miinantal waaw ak Sa Thiès góor gi moom dama ko daan gis nii ci image yi rek mais mosu a bokk jotaay waaw wax dëgg yàlla. Euh, Balla loo koy wax tey en tant que sa frère. waaw xanaa muñ rek da xam ni lii moom kër gu ne dugg na fa waaw moom gën a bees lay fa mais kër gu ne dugg na fa waaw kon daal ñoo ngi koy ñaanal mu am xolub muñ te gën a jàppale njaboot gi. te xam ni boo ko woy juróom di tay moo taxoon a bis bu mel nii bu demee ba gisatu ko rek nga xam moom mooy seere njaboot gi na ko yàlla may kattan gum leen téye te yokku teraangaam ci barke sëñ Tuubaa jërëjëf koo koy mbay sapar sapar rawatina kër gi ñun dañ fee am cër waaw sama goro la sama lépp la ndax ku ne xam na diggante Omar ak Baboy nu mu mel te àdduna yëpp tamit xam nañ sama digganteeg buur yi kon tamit bu ñu amee naqar dañ koy bokk suñu amee bànneex dañ koy bokk yàlla na ko yàlla xaree àjjana yàlla dolli ko fa sutura xaree ko sa àjjana ya gën a kawe te lépp luñ ko fi ñaanal rek mu fekk ko fa barke Seydina Mouhamed buri loo koy wax en tant que koo xam ne sa sœur la seeni borom kër di ànd di ay xarit muy diggante Balla Gaye ak Baboye yéen ngeen di soxna yi waaw muñu rek ñun ko ñu xam su muñ xam ak sëy gën a góorgóorlu muñ xam nga te xam ne na dara yàggul te dara war tey jàppale suñuy jëkkër te boobu ba léegi ñoo ngi si di ko ñaanal yàlla rek njabootam gi mu fi am lépp mu toog ba moom tamit ñu ko fi teral maa ngi lay jaale lu ñu bokk waa sant yàlla sant yàlla rek Double Less moo ko daan wax sant yàlla rek yow nag daa mel ko daan maame moom sama xarit la moom sama xarit la sax papa yi ñoom Omar la mais man suma xarit la même bu ñu voyagé suma xarit la moom ñoo daan toog di waxtaan naa si sant yàlla saa yu gars yi ñaan nii di tàllal loxo moom nii rek lay def loxo bi ma ne ko da ngay def ni mu ne dafa bëgg ñaan bi dugg te ma bëgg ñaane bi dugg ñaan bi dugg si moom waaw daan wax naa ma a ah, maasu ne ko a ah, leesu ne ma la nga wax ñu dem ni ah, ni jëm guddam pour sori na ma ne ko demalal sa bopp dëgg fa yàlla sama xarit la moom maa ngi koy ñaanal yàlla nag yal na ko saa borom xare àjjana ci barke yonent yàlla Muhammad génn àddina bi nga koy yëgee lu mu la def waaw am na lu mu ma def ndax euh, nit waxuma la sax sa boy jur nit nga xam ko mu génn àdduna rek dafa met waxuma la nga jaxasu mu amal nga amal ko njariñ kon am na nu mu ma def te ni mu def ay doomam barke yonent yàlla taxawaayam loo koy wax tey en tant que sa frère la mu nekkoon mu yokk ko sol aw dàllam boole ay rakk kam téye ñëpp te yàlla rek tax te xam ne kilifa du fal boppam yàllaay fal kilifa sunu borom nag moo jël ko ne ko tuuti def ko kilifa waaye malal saaxo mi taaw yal na yàlla guddal fanam wéral ko saakis mi nga xam ne rakk la ak mi nga xam ne mooy magi omar yal na yàlla defal jàmm ak idi ak ñëpp ak ku ma limul rek dama juum njabootu dubales képp yal na leen saa borom defal jàmm ci barke nante yàlla Muhammad yéen nag ah dama naa leen sigi leen digaale presse bi yëpp ñii seen maam la ñii seen ma leen di wax xaaloo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di leen ko jaalit yéen presse Sénégal gépp si barke nonti yàlla Muhammad seex na Cheikh waa waaw boogaa monsieur mi ngi nii carte d'identité baa ngi nii xam nga booy ñaata naan carte d'identité bi waaye man tout de suite carte d'identité bi mi ngi nii man rek ko am maas boogaa bu Cheikh na Cheikh Sat baa ngi nii maas dina Muhammad bu wul di Cheikh Mamad Fadel bun maameeg taalibul xayaar gànnaar am nan maami yaaram taalibi bam ñuy toog lu waaye di laaj lekk xaw see jaaxle tuuti rek nga ñëw ma ñaanal la yàlla mu sotti ak yàlla na sit bi doon télé ay télé télé télé